lagi bi nga xam lagi pandai di ci dan ak ak ñett dana góorgóorlu bu baax a baax gën koo fonk fonk ci minute booy ñëw loo mën ci tax te sanya su ko wax waaye fa ñu koy waxee rek malaayka yi li ëpp ci malaayka yi wàcce nañu di ko déglu taatu boo gi bu naqaree gëm la waaye noonu la amee kon nag képp koo xam ne ci tàmbalam di mbir na ba ñun ñëpp ci mën a doon taalibe ab taalibe nag yu bari war nañ koy waxtaanee damay liggéeyal sëñ bi fii kon yaa ngi tuumal sëñ bi ba mu fi nekk da ngay force alal jox ko ma teg Gallery Lever Janek Alam Butaran में जिसने निम्को फंसे थे dan hari Allah batai ne amma kaya ko bari mun to na am ko be trop mo asana सविता मेरी आने के लिए बाद में उन्हें मैंने गरीब बच्चों का गरीब एक ऐसा kau pergi mereka sehingga bisa ini aja ini, saya itu bisa tanya kau, Allah mulanya. Lalu ada kafe, saya karena warna kau lalu

li nga bëgg ci nga am ko nan ko bëggee li nga bëgg ci yàlla nga am ko nan ko bëggee yaa yooyu nga jafe na lool kon nanu góorgóorlu bu baax a baax te de de de xam lu lu lu lu la amal njëriñ ak lu amal njëriñ ak lu yàq ak lu yàq Jangan wata kota ni kibir sebab jadi kamu susah tu ni. Waktu akan ni dia mengenai gana kepada ni mana beri. Itu lima saya tahu saya anak ini kami dah saya dan saya juga kena saya punya. Waktu dah ni lepas dah ni ada ni mana beri. Yang dah naik beri ગમે પૂછી વાર પછી એને લતાકો લઈને ટેકો પેટે લઈ જતા કોનું ગોળ ઉભા એ જામ્યા લાગે જામ્યા લાગે પગલું ઉઠાડીને બરાબર મોટામાં નથી ચાલી ગઈ બરાબર ગઈ હળૈયા લઈ ગઈ દિવાળીના મોટા યાર એવા ગોઠા પણ મુદ્દા જતો જતા જતા કાપ દોડ kuma fekk sama darlañ bu dee sa di am loo fi mu la dinaa la ko wax wala ma boole la ko ko solo ko wax te te ku nekk yëpp na xam ne loolu tax ñu bind ko sëñ bi ku ne xam na ne Sedikit teksa borok, luai teka liata teksa borok. Komunyum, nafamnya semboro milu sabtu umum, muk lamtare wandiyan kutayro kogana tere, lambu wandiyan kutayro kogana kutu, lambige wandiyan kutayro kogana bige. Sedikit dohay mawairat talane kon, lusa itu gati lewan mawairat, lusa angko wandiyan sedikit bangat lewan, lusa itu sangko wandiyan sedikit nekudayro. quando non volevo venire a me, continuamente da, da, da, da faccia le quattro ore. Perché lui, a mia anni, e dopo mi dire, mi ne cammino, dopo sono io ne, con che non è che c'è di ne, del dan, del di che la che non è che è, la che non è che è ne, o come no, e tu, te va a ne con battere, non è che non è che va a ne con battere, njàng xasi xasida yi ni ngeen xam ne lu rëy rëy la ci fi mu toll bokk na ci liggéey Sëriñ Tuubaa di jàng xasaay ndax liggéey mboolem mboolem luñ fi tuddee liggéey xasida yi dañu xam ne fii ñu gis ko ci liggéeyee xolam sedd ca loola ndax li ci des xol bu fekk wëri sa jàpp ne mën nga ca ndax lu ne alal dina joxe na nggih yo alam itu main jangan alam itu main agak kecil Mari baru akunya dan kita akunya jadi jadi nubur dulu apa jangan hukuman mereka nak mereka ya dah ya orang saya bisnis dan hanya bawa kum kum kum kita kokon dia selalu yang kecil banyak barinya lah loolee man du sant borom ja moo moo ko wax ci ci liggéeyam liggéeyam bii ko fiy doxee ku ko jàng ku ku koy fekkee sax dana ci liggéey bi martaboo bi ca ngay ca ngay bokk waaye man maa ngi yéen yéen bu kenn génn ne maa ne koo jàng ajal nga yéen ndax moo ko waxal boppam yow si lu xat ci man axal la jënd daal ndax am na am na ci képp wax sa bopp ne bii bokk de dara ak it yàlla jaga na lool te nee na sama xasida yi dana àggale nit ci yàlla Memang bukan bodoh dia ya aja saya lah. Bodoh dia kalau kita gaya sama sama dewan jangan kita saya satu. Kena kita kena gaya aja sama mana pesa dua makan. Dado nu kau kan yang ini pergi sedang gaya dan jadi orang saya jadi kau ni sama orang tu mana pesa gaya wing तीन तौहीन करना दनानो नीला न जगे दनानो आखिर बिजय ने हादिर वरी konkret na gurgurun ba ba yang ya kusa na malikun rahmatullahi ta'ala wa